di am contentement ci finale bi nga xam ne si tey présidé nañ ko fii ci Thilmakha Mbakol ci cérémonie bi marqué la quatrième édition donc vraiment ñu parrainé ma ko ma ànd ko ak waa commune Thilmakha vraiment di leen ci sant di leen ci gërëm. ci wàllu politique gis nañ ni l'opposition fi teg tànk. waaw naka la APR tëdd fii jafe-jafe. li ñu constaté daal fii ñun ñoo ngi fii di di liggéey guddi ak bëccëg waaye li ñu constaté daal mooy que. APR daal suñu localité bii muy Kajoor di Cilmaxa bokk ci arrondissement de Niakhène te ñëpp xam ne arrondissement Niakhène arrondissement la bu compté ñeenti commune ñeenti communes yi tey bu ñu doon xayma li fi nekk ci électeurs mat na quatre-vingt mille électeurs waaye nag depuis 2012 ba léegi li ñu constaté mooy gouvernement bi cër yi mi sëdd yëpp ci yeneen arrondissement yi la ko jëmale waaye suñu arrondissement Niakhène bi daf ko daf ko del dañ ko dañ ko dañ koo fàtte ci biir loolu nag ñoo ngi leen di ñaan di leen wax ne localité bu am solo te franchement gisaguñ suñu bopp ci yëf yi ñoo ngi dégg ay programme plan Sénégal émergent ñoo ngi dégg ay programme du PUDC ñoo ngi dégg ay programme yu bari mais actuellement programme yooyu na constitue qu'un rêve actuellement pour la population de Thilmakha ndax gisaguñ ci suñu bopp. au conseil bi au bi tamit gis nañ ni président ni mu ko séddalee ñun tamit du ñu def lu dul donc ànd ci choix yi def waaye nag ñoo ngi koy ñaan. mu bàyyi ñu xel ci xam ne localité lañ boo xam ne si ni ñoo ngi liggéey ca bàyyiwul desuñu ginnaaw ndax communes yi fi nekk yëpp vraiment c'est des communes favorables à lui nit nag bu lay liggéeyal ci communes yi nga njëkk a recevoir dans le département Tivaouane jaadu na tey vraiment ñu ñu ñu ñu bàyyi leen xel ndax ñi fi nekk ñi ngi liggéey jour et nuit population bi góor ak jigéen ñi ngi liggéey ci am nañ am nañ yaakaar ci moom ca man mii di wax tamit vraiment waa Thilmakha ñoo ma jox loxo ànd ak man ca bu ñu ma joxee loxo c'est grâce au président Macky kon nag maa ngi ñaan président Macky Sall mu jox ñu loxo ñu ànd liggéey pour le plan pour pour pour le Sénégal. également pour le Cilmaxa waaw. da ngeen réclamé daal ñu tabaxal leen donc actuellement sax yàlla def na au niveau au niveau de l'AGETIP yalla def na ak octroyé nañ Cilmaxa benn commune benn benn stade. ba bientôt ils vont démarrer on a vu que ça a été attribué xamaguñ nag lu waral lu tax démarrer guñ ko mais yaakaar naa ne feeg déwén yaakaar nañ ne terrain ñu nekk incha allah dinañ fi jóge dem jouer ci stade boo ne stade municipal lay doon. merci nga doon di wax ne ci tey final bi nga xam ne ñu ko doon tenir xëy nañ remetre ñetti moulin à mille ci jigéen ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci commune Thilmakha donc jox nañ benn moulin à mille au groupement féminin yi dëkk dëkk bu ñu wax Longoor Mbay jox nañ benn moulin à mille ak jigéen ñi dëkk ak euh, Kër Yuusu waaye tamit jox nañ benn moulin à mille ak jigéenu ndukkumaan yi nga xam ne si ñoom it vraiment desuñu ginnaaw ñi ngi yëngatu di góorgóorlu di yëngatu ci transformation di yëngatu ci maraîchage vraiment nekk ay femmes yu brave te vraiment seen dëkk yi aussi c'est des militantes très engagées ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci geste bi di wax ne amuñu lu ñoom na leen ànd liggéey pour un Sénégal émergent. xanaa kontaan ci tabaski mi rek ñoo buñ ñu santee yàlla ñu ngi ci yonent bi sallallahu alayhi di sant tabaski. di sant tamit sunu sama borom kër Cheikh Fall ndax lii lépp moo ma parce que day lii mu lii ma am lépp tey ma am ñu topp sama ginnaaw lépp Cheikh Fall la maa ngi koy sant di ko ñaanal ñu teelu ko yoonu Màkka ci barke Seydina Mohamed di ñaanal tabaski mii nag ndax tabaski lépp moo ma ndax tabaski jëlale naa machine bii tey moo mujj mais sunu toogee tey lee nekk taabul ba di roose tey yàlla ak tabaski moo tax ñu am ko moo nu xëccal ndox moo nu moo nu tabaxal ay bassin moo yëkkati jiwu di ñu jox bu fekkee lu ñuy liggéey la projet mooy lijjanti ay projet dikk indi ko ca dëkk ba ñuy liggéey kon moom amu ñu fayam liñ koy ñaanal daal mooy ah ñu xool ñu ges ko nag te xool ko te jàppale ko te xam ne nag jàppale ne cilmaxa te nag nit ki amul ku ay jigéen te jamono ji jigéen a ko yor ak xale te am na jigéen ñi am na xale yi am na mag ñi am na ndaw ji kon li ma bëgg mooy tabaski ñu jàppale ko ndax buñ ko jàppale rek dina jàppale cilmaxa mbaakool yëpp ñun jigéenu cilmaxa li suñu jafe-jafe mooy ah suñu mbay mee tey ñu gis Ah, euh, tool bi amuñu clôture ay silaan rek moom lañ ko sampee ñu bëgg ku ñu jàppale ci tool yi ñu bëgg tamit euh, ndox kun ci jàpp ndax ku ne xam na ni mètre cube ndox 250 metti na ñu bëgg ñu gestuñu ndax nu ñu nanoo song nu ñu nanoo liggéey ñu ngi ci jën yi ñu ngi ci marché bi ñu ngi ci tool yi waaye dañoo bëgg ku ñu jàppale te président nag moo ne woon bàyyi leen ñu nekk ci mbay mi kon loolu li ñu bëgg mooy mu ñu ci ginnaaw mbay mi mu jàppale ñu bu baax ci mbay mi loolu lañ bëgg financement yi ñoo ngi ci jot moom bu baaxa baax ndax lépp tabaski mi ya amul benn tabas benn financement boo xam ne rek dina am ca tabaski mi joxuñu ci suñu wàll suñu lépp a ngi ñëw kon nag liñ jàppale daal mooy tool yi lañ bëgg kun ci jàppale ngir yàlla war a sooli moom lañ bëgg ci carton suñu borom moom lañ bëgg ñu gëstu ñu xool ñu ci ñu ngi sant tabaski nag ca kaw ca kanam te bëgg ñu jàppaleel ñu ko nag tabaski daal bu ñu ko jàppalee rek jàppale nañ ñëpp loolu daal lañ bëgg wasalaam